رجاء جنة بلا taaxaatin tin sunnatil maa yi xuróorum yaati ajjana joo xam ne sëñ tubaa nee na lu la neex def ajjana joo sëñ tubaa nee na lu la neex wax ku xam fu mu nekk demal nga wute ko man day saytaane sori na ma te amatul ci man bunt te saa soo xamee ne que ni jël naa sama xalima di tagg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam saytaane daf naan ërtal départ isaa katabtu aw xaraxatu xar wala Iblis, fawran mahaman taxawala lolu seigne touba wax na ko mu leer seigne touba dafa ñew fekk sunna su bi alayhi salatu wasalaam li nga xamne ci la bi tegon tankam ba taxone mu def ay xasso yu bari xaswatu badar ak sul Khodai xuday baag yi demé nak yoy yëpp yonente bi def ko ay julit yu bari wacc ci liggey yenn xex yi mu jël victoire bi ko ba l'islam ñew ba taxaw bam na la ikrah fi din dini amutul force bam xëy ñëw na al yawma akmaltu lakum dinakum fofu la sëñ Tuubaa sole dal yonent bi alayhi salaatu wasalaam fofu mu na al yawma akmaltu lakum dinakum fofu la sëriñ Tuubaa sole dal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne lil Mustafa nawaitu ma yujaddidu sunnatuhu al gharra wa inni ahmadu kon nak def na ka tey man ahmadu man may ki yeesal sunna si bi alayhi salaatu wasalaam ana lan moy sunna moy fa yonent bi tegoon tànkam tafa teglu tànk muy l'islam ju set ju andut ak bokale loolee de la yonent bi def ba sëriñ tubaa sopp yonent bi ba donn ko ca loola ba tax njabootam gépp mu jël leen tudde leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam boole koog nag di jaamu yàlla ci saa su nekk naan salaatu sitta bi mat in sitta tati i battamaati say juróom-ñaari weer di ko tagg yàlla di ko jaamu yàlla juróom-ñaari weer di ko di di tagg yàlla di tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam mosu caa dañ xarakaatam yëpp mosu ko mosu ci uh, yaatal seytaane ci benn bunt tey jii nag bu demee ba jël yoonu murit teg ko te gannaaw ba mu jaaree ci yoon yëpp gis na ne yoon yëpp baax na waaye dem na ne espace bi mu soxla ci liggéeyal yonente bi alayhi salaatu wasalaam espace yoonu murit rek moo ko moom moo ko moo ko am yonente bi moo ko feeñu Mbàkke Kajoor en 1883 ne ko rabbi asaabaka bil himma wala turabbihim bi dar a wa rabba kulli waahidin bi minhum bi ma yaliqu bihi muy tarbiya foofa la ko amee waaye wërdu yoonu murit ma ngi ko amee ca Sarsara foofee la ko amee kon nak jëm jojé jaxna na takk ci yàlla tu lenn lo xam nit mën nako nek diko di ko di tuddu Serigne Touba te du ko djub koku boko waxé da ngay wedde sa bop Serigne Touba néna na na ba yay len te yeen kenn munuma yay lay yay lay ba yay ma ndax lima bind na bàyyi wax na ngeen deg def na ngeen gi loolu ngeen gis ma ko don def da moy lima don bind ci sama bindum loxo te moy tag rasulullah sallallahu alaihi wasallam te fofé la nekkon ku ci nek day fo meuna nek ci aduna mak yow ñoo and ku ci nekkul nak na nga xamne ne fofu nek sa bop nga fa nekkal te na nga xamne shaytan nga nekkal kon kay ndeysan loolu leer na serigne touba jur njabot gu bax la ko dalé ci kam am ba ci ki mujj am ñi ko fi ji jotta nek a te ko fi ak ñi nga xamne jotu ñu fe nek ñoom ñepp ma ndax kenn ku ci nek serigne touba neena na def ci yow fukki weer ak ñaar ñi ci dess nak nga xamne samay seud lañ kenn ku nek fenn sala def ci yow ta mo waxe ne lil mustafa nawaytu ma yujaddidu sunnatu al kharra wa inni ahmad way ngal la kon ku ne ab murid la nga gëss lolu ngir nga man ci jariñu seigne touba bo nekk ci shaytané diko yëngu na nga xamne da ngay wax la la neex def la la neex ku la ci mëna encourager na ngeen xamne ci firu shaytané ngeen nek seigne touba ludul diine seigne touba bokku ci ludul sunna seigne touba nekku ci kon mëno ko tuddu ci lenn lo xamne fi dañ nan ah li ndax moko wax wala li ndax mom la doon jëfé déedéet bu ci xel yar amé rek na la wóor ne loolu sëñ Tuubaa nekku ci sunna su mat sekk la doon dundal mu am nak ci njabootam gi ko xamné moy mooy patromanu jullit yi yépp ndax mo ëpp gëna siiw ci aw turam lu ko nit ñi di tuddu ci seen intérêt bop ak seen njariñu bop muy kan muy salika fadlullahi yuti man yasha wala husul fadlil azim nga ak fi mu naan yaa fadilan fadlahul Ya man bihi faraxinil imlaaxu suñ borom day tagale na maag buntukir yap ci buntu keur ken ma di taxaw di ci si wala ma di bëgg dara ndax mbolam lima bëggoon suñ borom andil na mako ko ci rajab gi muy cheikh mahmoud fadal mi nga xamne fenen fum feñon mu feeñoon dana fa lakali wit fa lu momu nak dañ ko joxul joxu ñu ko respect te tuuma yi bari nañ señ fallu neena señ fallu ji neena mi ngi boy nopi nit ñi te ñi koy wax duñ ay référence ay nité saytane lañ ndax ñi Jamun yalla te nee ay julit lañ ñi ñi ngi yëngu sa su nekk ci ak mo yalla te lañ koy lañuy moye yalla nak ci lañuy tuddé señ Fallu diko dara jaal ne wax ne mo leen ci encouragé muy ak njuumte di ak togn nit nak su fekkee la nga bëgg bëgg ko la ngay def la muy def defuko defoko koku wax deug yalla war nga mëna mandu ci di tumal tuumal te lenn man lima ci gëna mui jaaxal nag lu ban luñu jëk yëkëti te nit di ko jëfee dañ naan sëñ Fallou da nee na woon ba ci kii nga xam ne moo waral tey coow li ñu war cee waxtaane muy kii nga xam ne nee na nafis sopp sëñ Fallou la tudd koo xam ne si nee na amul fanweeri at te nee na da doon jàng njàngam tubaab ba xëy dagg ma bàyyi ko nag léegi soobu ci li nga xamante ne si mooy ay jinne la gis ne ñoo ko wan ne ko na ngay dugg ci xeeti xarfa foofa xarfa foofa yooyu muy def nag mooy samp béjjën ak yor ay petaaw di joxe ay tegtal di jël luy ñëw ëllëg di ca jox nit ñi ay raf ay ay ay exemple ba nit ñi daw di buur di top loola te loola xam ngeen ne bokkaale yàlla la jëmm joojee nee na daa toog sëñ lu feeñu ko ci guddi nee na nu mu ko feeñoo bi mu ko gisee jëhran la ko gis nee na xëmmu ko sax man ma laajte ko yaway kan mu ne ma mën ay doomi sëñ tuba defe ngeen ne jooju xotti war ma jooju xotti war ma benn julit war ngaa toog muy dugg sa nopp ngay toog di téye saw làmmiñ ci war cee wax du ay teggin du te ki koy wax day na la ne ma nga jël photo sëñ Touba def ca gannaawam def photo sëñ Fallou def ci wetam jël njëllug sëñ Fallou tak ba paré li l'islam cité ci jigen wax ne jigen juko yor na la wóor ne bu ëllëgé dana la rebb ci sawara lolé lepp ma nga ci melakan wa muy xéssal ba muy gerefaas ba muy yër yër yëre yu dang ya ak wax ca kaw nit ñi di la dégg ngay wax loo xam ne diiné rek diine reconnaître ko sëriñ Touba reconnaître ko l'islam reconnaître ko mu nekk lu ñaaw lo xamné ne lañ ko gis ba pare nag la ca gën a te métti ñu publier ko ndax bu doon bàkkaar boo xam ne da nga koo def ak lu mu rëy rëy te keneen amu caw yoon kooku nun amuñu ca luñ cay wax ndax xamuñu ca dara waaye nag dem ci ab média réseaux sociaux boo xam ne xalimaam toujours mi ngi koy jawal di bind loo xam ne àddina sépp ci teg bat non seulement ñu filmer la muy li gën a dangereux nga toog di wax di tudd jëmm ju baax te tiim lu araam loo xam ne sëñ Soxay bu Mbàkke am na lu mu ci waxoon te loolu it ba yonent bi ñëwagul looloo fi amoon bi yàlla bëggee xeetali mbindeef yi ngir bokkaale gi ñu koy bokkaale ci la wàcce yonent bi alayhi salaatu wa salaam te dégg nga ni ko sëñ Tuubaa day waxee nga xam ne booba bi yonent bi ñëwagul ñii dañ daan jaamu ndox ñii di jaamu sawara ñii di jaamu ay xërëm lenn lu tekk nit wuti ko di ca di ko mandargaale yàlla ci sa bopp ba dégg nga ni mu ko wax ay na saa wa tallati xat xasumat wa jëllati lil fursi xab lil millati wa suirat kal xadami boobu sëñ Tuubaa wax mu ñu daan jaamu jaamu ndox nee na keroog bisub keroog bi nga xamee ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw na nee na ci la bëtub ndox boobee fay muy bëtub saaba ca la seen lal ya damm ca seen tax ma màbb loolee yonent bi ñëw di ko xeex ba taxawal ay xaswa yu bari muy xaswatu badar sulxul xudayba ak yu bari et cetera di xeex deretam di tuur dereti jullit yi di tuuru ñuy jaayante xeex bu gën a tar lii te ndax lislaam rek ndax li yàlla na inna diina hindalaay al islaam ba yàlla dogal loola taxaw léegi nag yonent bi ñëw na laa ikra fi diin alxuraan bi ñëw na laa ikra fi diin léegi diin diine nekkatul force diine léegi pratique la ndax gis na ne wate na ba ñëpp ñëw bi sëñ tubaa ñëwee keroog ba yonent bi ne al yawma akmaltu lakum diinakum bisu keroog la sol daal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne lil Mustafa nawaytu maa yi jadi